fal ki ñu war a fal ci anam yu leer yoo xam ne Sénégal day continuer jëm kanam loolu mooy li ñu fi indi loolu nag kuñ ci woo nga ne yow ñëwuloo te loolu sa mbiru bopp la bu leen foog mu ne man ngeen ko def defuñu ko président de ku ne duma ñëw waxtaan ci sa bopp nga ko def président def na li mu war a def ku ko bëgg loolu lay def mooy waxtaan ak jalo gi ku ko bëggul loolu lay def mooy waxtaan ak dialogue suñu dialogue ba pare nag jotaay bi li muy rëy rëy amul dogal bi loolu tam dañ ko war a xam waaye dinañ ne président suñu gis-gis jàpp nañ ne lii mooy li gën ñeneen ne ñun lii la jàpp ne mooy li gën su ko defee nag moom mu xool su taataane ba pare nag jël dogal bi muy jël su ko defee ñëpp jubluwaat ci liggéey dem ci élection yi ci jàmm ak salaam loolu mooy lii jig Sénégal loolu mooy lii jàmm Sénégal te wax naa ko waxaat ko junj naa ko junj nag doy na boroomu xel nañu dox jàmm bëggal réew mi jàmm loolu mooy njëriñu réew mi mooy njëriñu ëllëgu Sénégal kon yaakaar naa ni fii jàmm rek moo fi war a mën a génn ak waxtaan bu fekkee tey pare nañu ëllëg am ngeen journée lëmm su laajee sax ñu yokk ko ngeen yokk ko ñëpp rek wax ñu déglu ñëpp déglu seeni argument su paree ñu taataan jël synthèse yi jébbal ko président la république mu doo ko mën a jël décret bi fixe date bi ne bés nangam la li ci des nag la ñuy def après le deux man dinaa saisir conseil constitutionnel xamal ko sama xalaat wax ko it mu wax ci loolu ndax si njëlbeen ga ñoom ñooy mujj kàddu googu waaye assises yi am nañ ci wàll mën nañ ci waxtaan ndax yeneen réew mi te réew mi moo nekk ci kaw constitution moo nekk ci kaw élection moo nekk ci kaw lépp